association de malfaiteurs ak pôle en réunion ba Sénélec wootee Sénégal ànd ci ak nguuru Macky Sall ànduñu si tey ànduñu si ëllëg man maa lank maa bañ fayuma suma courant coupé nañ courant bi su leen su leen neexee nañu coupé wante ñun ñoo lank ñoo bañ beneen bi mooy jii Marius Sagna di un citoyen exemplaire un digne fils de ce pays un patriote ñu koy jël di ko tëj kaso di ko jaay doole ànduñu si tey si ëllëg ñu ñu ñu dëpp keesu poste dëpp keesu euh, kudd dëpp keesu euh, Prodac ñoom kenn du leen woo ñu ne dañuy woo Guy Marius Sagna il exerçait un droit constitutionnel dama ne mbokk yi Guy bu muy manifester dafa am ñu mu àndaloon ñoom dañ leen bàyyi parce que étudiants yi dañuy jóg wane seen naqar Macky Sall ragal la ragal la tapet la dama ne na jóg te wane seen bopp seen naqar bi ñu dee Guy Marius dama ne suñu société yëngatu na suñu société yëngatu na Macky saay la Macky saay la dañu respecté suñu Sénégal mais ma ñëw aussi pour jox message di wax askan wi senegal ni bu ñu mës a fàtte ni Guy Marius Sagna Fallou ak Ousmane Sarr ñun lañ nekkaloon ci naaj wi ñu ngi doon xeex ngir ñun ndóol ñi ngi doon xeex ñi ñi nàkk ñi ngi ñi néew doole ñi ngi doon xeexal ñi nga xamante ni liñ leen tegal liñ leen teg askan wi askanu entre nu ko kon tey jii ñun bu fekkee bëgg nañoo fay naar bi xoromam ñu mobiliser wu ba Guy Marius Sagna mën a ñibbi seen kër ñu wax monsieur Macky Sall ni ko jàmm moom dootul nelaw ba yandoor dootul am jàmm réew mi dal du fi ñëw lu dul Guy Marius Sagna Fallou Galass sek ak Ousmane Sarr ñibbi nañ seen kër su leen bàyyiwul ñu ñibbi seen kër ñaar moo mën a am mu ubbi prison yi ñooñu ñibbi su ko amul prochainement mobilisation bi marche lay doon ba dem ci biir prison yooyu ubbi prison yi Guy Marius Sagna Fallou Gala Seck ak Ousmane Sarr ñibbi seen kër ñeen fukki guddi doy na sëkk ñeen fukki guddi doy na sëkk 40 jours c'est trop 40 jours de souffrance 40 jours de violence 40 jours d'injustice 40 jours d'abandon 40 jours d'absence, ça suffit largement. Ces prisonniers politiques doivent rentrer à la maison et ils vont rentrer à la maison. C'est un avertissement solennel que nous lançons au gouvernement. Et un combat, on sait que ça peut commencer aujourd'hui, mais on ne sait pas à quand on va atteindre notre objectif. On ne se bat pas pour la cherté de l'électricité ou de quoi que ce soit. ok dafa ñëw bokk ci dugg si mais par exemple man li ma xàmmee li ma jàpp mooy j'ai commencé le combat à l'âge de 16 ans ci laa def prise de conscience xam ni je dois m'engager pour ma patrie et tous ces jeunes que tu vois aujourd'hui ici c'est pas une bataille encore une fois le combat on est les suicidaires on va faire un suicide individuelle pour une résurrection collective c'est pour la génération future prochaine étape bi mooy on va continuer de dire non ñoo lànk ñoo bañ ñoo tëdd ci tali bi ba keroog Macky Sall di respecter les Sénégalais donc aar nañu ko ñëpp xam nañu ni Guy Marius Sagna mooy co-coordonnateur bi te bokk na ci à part coowal Guy Sagna aar lu ñu bopp wax kenn mënu la wax électricité soo doo wax ressource naturelle kenn mënul wax électricité kenn mënul wax énergie te doo wax ressource naturelle ndax Macky Sall bu géré woon comme il le faut suñuy contrat bu woon comme il le faut suñu pétrole ak suñu gaz kon tey du wër ci di leb xaalis boo xam ni dina ko jéem a defaat ci réewu Sénégal du jéem yëkkati os bi di ko supporter la sénégalais yi nga xam ne tey pour ñu faju di la tëb pour ñu lekk da la tëb moo tax ñuy wax on prend date pour on prend date pour des manifestations impensatives intenses pour la libération de Guy Marius Sagna vive Guy Marius Sagna vive Amadou Ba. jàppe seen bopp ay lawbe yor seen ay yet ñu jàppe ñu ay mbaam di ñu dóor ginnaaw ñoom ñoo am fit continuer di ñu dóor ñun ñu war a am fulla ak fayda daal di ni dóor yi metti na kon ñun dañuy continuer di bañ di lànk ndax li ñu teg askan wi ci électricité bi diis na duñu ko nangu ñoo bañ ñoo lànk waaye bu loolu weesoo ñuy ñaan gouvernement Macky Sall ñu ko Guy Marius Sagna Fallou Gala Seck Ousmane Sarr ay sénégalais yu honnête lañ ay sénégalais yu bëgg seen réew ay sénégalais yoo xamante ni ñoom ñoo ñu nekkaloon ci naaj wi te li leen yóbbuwoon ci naaj wi mooy ñi défendre ñu ñi leen yóbbuwoon ci naaj wi mooy askan wi nga xamante ni dafa nekk ci ndóol askan wi nga xamante ni mënalul boppam askan wi nga xamante ni amul lu mu fayee ñooñu ñooñu yóbbuwoon ci naaj wi ba di leen dal dal la kon ñoom waruñu ñoo gën a gore ma Sall nag leen rek la mën a xam mooy mu libéré Guy Marius Sagna Fallou Gala Seck ak libéré wul la prochaine fois la prochaine étape nous irons jusqu'à la prison pour ouvrir les prisons pour libérer les otages politiques parce que jours c'est trop jours ça suffit

Guy Marius Sagna, Fallou Galassec et Ousmane Sarr ont fait honneur à la jeunesse africaine, ont fait honneur à la jeunesse de notre pays. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus rester dans l'indifférence du sort qui frappe ces pauvres garçons. nous ne pouvons pas continuer de vaquer à nos occupations dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer d'aller au travail dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer d'accompagner nos enfants à l'école dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas, continuer d'allumer la télé, suivre l'information et de dire que Guy Marissagna est un patriote. S'il est un patriote, nous devons faire preuve de dignité et exiger, la libération. sunu maire léegi cap de ses waaw radi glace lay jaay radi kerem maanaam est-ce que xam nga radi glace xam nañ benn maire léegi cap de Cesse. radi glace lay jaay. radi kerem maanaam. est-ce que xam nga radi. si kanam si kanam